salaamaaleykum mbooloo mi euh, ngeen may ma ma jottali nuyoo chef de l'État son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak euh, premier ministre euh, monsieur Ousmane Sonko sant suñu sëriñ nga xalif général de Mouride sëriñ Mountaga Mbacké yàlla na fi yàlla na wér te yàgg fi sant tamit porte parole sëriñ Bass Abdou Khadre sant borom Touba bu baax a baax su ngeen gisee nu ñu duggee fii dinañ xam ni teewaay bi ak accueil bi ndigal la te xam naa ni fi Touba nit ñi si si ndigal lañuy la ñuy wéy te ci sant comi comité boo xam ni moom moo taxaw pour ñu def fi dispositif sanitaire boo xam ni moom la ñu war a waajal waajal pour wàccaay màggal tuuba parce que xam na ni mbooloom bu takku euh, dina fi ñëw liggéey nañ si nag liggéey bu bu mucc ayib présenté na ma euh, dispositif bi te gis naa ni lu ñu war a jël yëpp si matukaay jël nañ ko ba mu ba mat sëkk lu ñu ñaan yàlla rek mooy màggal bi ñëw si jàmm fekk ñu si jàmm lu ñu war a jëfandikoo yëpp ñu jëfandikoo ci jàmm yàlla may ñu màggal boo xam ni tawféex lay nekk ci ñun ñëpp di sant tamit autorité administrative yu fi teew gouverneur gis nañ taxawaayam depuis buñ ñu commencé di waajal màggal bi guddi ak bëccëg moom ak équipe am yëpp préfet sous-préfet sant tamit délégation ministère de la santé ñu fi ñu fi teewu ñoom tamit depuis bu ñu commencé di wax waajal màggal bi taxaw nañ si bu baax a baax te lu ñu woon tey si dispositif bi wane na lu ñu waroon def yëpp euh, euh, def nañ ko di sant directeur hôpitaux yu fi nekk gis naa ni seen taxawaay bu baax a baax médecin district yu fi nekk bu nekk Mbacké bu nekk Bambey bu nekk Jurbel ñoom ñëpp ñu ngi si taxaw bu bu baax a baax service d'hygiène won nañ ma lu mu nekk di def te xam naa ni liggéey bu baax a baax la ñuy sumb fii nii si Touba pour waajal euh, màggal gi mais di gën tamit sant président euh, premier ministre ak gouvernement bi parce que année bi dañu waxoon ni comme xawoon nañu am tuuti jafe-jafe si côté inondation te dañuy ragal ni xëy na jafe-jafe si wàllum wàllum euh, jàngoor yi wàllu wér yaram mun na mun na am dañoo yokk ambulance bu doon joxe année bi parce que am nañ caisse d'avance bu ñu doon joxe wante année bi dañoo jël huit cent million ne nañ ko jox hôpitaux ñetti hôpitaux Touba pour mun leen gën euh, jàppale pour ñu mun a gën a mën a faj fagaru si màggal Touba bi nga xam ni du ñu si am vraiment benn benn benn gàllankoor te xam yaakaar naa ni euh, koppar buñ buñ bu ñu jëbalal hôpitaux yi dañ koy jëfandikoo bu baax a baax ba mu nekk njëriñ askan bi nekk tamit njëriñ dañoo ñu ñëw màggal Touba mais mu nekk tamit njëriñ su màggal Touba jàllee ba pare parce que hôpitaux yooyu tamit dañu war continuer di di fonctionner di joxe service euh, service boo xam ni moom la population bi di xaar damay sant conseil municipal bu Touba sant aussi Touba si kanam ak mboolem ñu fi nekk ci ay association ñoo xam ni ñu ngi jàpp si dëkk bi jafe-jafe bu fi am ñu ngi ciy jàpp di ko saafara te xam naa ni euh, su fekkee ni amuñ woon benn taxawaay du mu wax système de santé bii du dem mais dina am loo xam ni dina dina lëj tuuti wante vraiment man xam naa si biir Touba ñoom ñu ngi ñëw di mu wax si ministère ba fale lu ñu nekk di def fii nii si wér si mbirum wér gu yaram xam naa dañ ko yéenee Touba yéene ko waa Touba yéene ko waa Sénégal yëpp te maa ngi leen di gën a ñaax ñu gën si taxaw parce que santé lu mu laaj pour ñu ah, pour suñ objectif ñu mën a ko jot financement bu bëri bëri la laaj état bi kese du ko mën a def il faut que population yi bon volonté yi ñu mën si dugal seen loxo partenaire au développement yi dina ci dugal seen loxo parce que tey Sénégal soo jëlee du santé rek moo am boo xam ni soxla nañ si financement mbay baa ngi fi éducation baa ngi fi jàngub alxuraan baa ngi fi euh, pêche baa ngi fi donc secteur boo jot soxla nañ xaalis donc dañuy xool ku nekk ñaata lañ la war a jox pour nga mun a dox mais santé soo xayma lu muy soxla pour dox duñ état bi kese mënu ko joxe te xam naa ni bonne volonté yi ñu ngi koy joxe damay profité fii si sa kanam di leen di leen di leen remercier te di ñaan yàlla ñu gën a yokk seen loxo yàlla may leen wérgu yaram may leen gudd fan may leen kattan pour ñuy gën di taxaw suñu système de santé Sénégal mais ngeen def ci ñaan bu bu bu baax a baax am na tamit euh, euh, ndimbal boo xam ni jóge na ci ci ministère de la santé xam naa ni dage bi moom après dina ko dina ko jox seen seen service yi mooy lu denrée alimentaire ak euh, yeneen produits boo xam ni pour pour affaire set xam ni peut-être dina leen mun a jàppale si si si màggal bi pour mooy mooy tënk xam naa ni jot bi moom amul te eh, dama waroon sax baalu pour temps bu ñu bu ñu la toogloo fii te xam naa ni da nga amoon yeneen soxla ak yeneen itte yu ngoon ndox dama bugg rek nga ñaan ñaanal ñu ñaanal Sénégal ñaanal gouvernement bi ñaanal ñu fas yéene ñëw si màggal tubaab yi ñu ñëw si jàmm ñu def màggal tubaab bi si jàmm ñu ñibbi si jàmm fekk seen famille yëpp jàmm fekk waa Sénégal yëpp ci jàmm jërëjëf wasalaam